asalaamaaleykum Alphonse asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré comme ni ñu koy defee ci alternance bu jot ci waxtu bi euh, vraiment ñu ngi bég trop di continuer ak yéen émission bi Alphonse ma ngi lay nuyu di nuyu mbokku Belgique nak nga def nak wa Belgique. ma ngi lay fay Boury maa ngi ci jàmm tout le monde va bien ici globalement. Euh, nuyoo tamit ñu ñuy seetaan kontaan ñëwaat waxtaan ak yéen ci mbirum actualité Sénégal. Mm-hmm. tout à fait.

Euh, nit ki da ko war a def ak ci situation bu mën a nekk wala euh, gore ci politique leneen la loo xamante ni bu fekkee situation bu euh, bu jafe am na war nga mën a taxawaay beneen taxawaay loolu tamit lu am solo la ñaareelu ponk waxtaan bi mu ngi dem ci wàllum la cupidité dans les dans dans les affaires la cupidité des affaires maanaam bu ñu cupidité dans les affaires dafay def ñuy yóbbu ci tey mbirum Ndingler mbirum Ndingler mbirum suuf mbirum Babacar Ngom xam nga maanaam am doole am xaalis naka la ñuy taxawee borom doole yi borom xaalis yi ak baadoole bi ak ki nga xamante ni yorul mais tamit euh, lan la ñu bëgg pour suñu réew ci wàllum affaire dañoo bëgg ay ñoom dañoo dañuy ay Sénégalais yu am doole ci wàllum koom ci wàllum euh, liggéey wala dañuy bëgg rek ku ci nekk li nga yore nga téye ko nga téye ko sa bopp. ñetteelu ponk waxtaan bi mu ngi nekk ci euh, mbirum Abdou Karim Sall <laughs> maanaam ministre de l' environnement moom nag daanaka lu mu fi def. ci wàllum euh, taxawaay bu baaxul wala wàllum erreur bi mooy deuxième fois gis nañ fi ministre boo xamante ni mosoon na fi taxaw di bëgg a arrosé garab jëmbat garab taxaw ci kaw basan Abdou Karim Sall mii moo ko def taxaw ci kaw basan ñu lalal ko basan mu ñëw taxaw ci kaw basan pour ay dàllam bañ a takk suuf mu jël arrosoir di arrosé ab garab naan day jëmbat euh, tey dañuy waxtaanee waxtaane wàllum les gazelles oryx et le manque d'eau au Sénégal euh, gazelle oryx yi muy benn xeetu mala boo xamante ni Sénégal da koo amee tey ministre bi am benn taxawaay taxawaay boobu nag mu jaaxal ñëpp mu jaaxal ñëpp jaaxal boobu nag mu jaaxal ñépp ci la ñuy dugg waxtaan ci daanaka lii muy ñetti ponk waxtaan yi premier ponk waxtaan bi dinañ ci dugg ak suñu euh, mbokk Daouda Koundoul euh, dina dinañ ànd ak ñun ci wàllum loyauté en politique ñu wax tuuti ci wàllum constitution wax tuuti ci wàllum euh, Euh, manam taxawaay bi nga xamanteni ni Moustapha Cissé Lo euh, mu ngi nek un cas de constitution pour certains ah, nit ñi di ci gestu mom bu génnee bu duggee ci waxtan bu ci waxé ñun dinañ ci càmbar xol est-ce que aussi waa APR euh, respecté nañu règle yi nga xamanteni mom mom moom moom règle d'exclusion yi nga xamanteni ni dañ ko waron respecté balaa ñuy exclure ki nga xamanteni moy Moustapha Cissé Lo kon Alphonse li moy waxtan bi te daanaka suñu gan ñëw na pour and ñun ci premier ponk bi ma bàyyi rek nga dugg ak moom ci premier ponk waxtan bi. wa merci beaucoup Boli euh, bienvenue Daouda salaamaaleykum na nga def. maa fi rek maa ngi lay nuyu bu baax Alphonse di nuyu sa natango Bouye aussi. ah ba euh, Daouda Kounou ñu ngi lay ziar. ok di rafetlu sa teewaay ci waxtan bi. merci. waaw très bien question loyauté en politique c'est une question bu am solo la parce que dañoo gis ne temps yi moom. Euh, actualité ça tourne autour de l'exclusion de de de Moustapha le Lo euh, ça questionne un peu constitution loi nous de sorte que genre euh, de sorte que ça soit pas discutable mais on débat pour est-ce que euh, l'exclusion du parti entraîne automatiquement la perte du mandat de député. Daouda Koundoul ah, mm-hmm. yow mi nga xamante ne yow sa xam-xam moom ah, moo gën a sore ci wàllum droit lan mooy sa jàngat ci question boobu. waaw Alphonse genre phénomène yi bu amee buñ koy faral di jàngat dañuy jàngat enjeu yi maanaam lan la lan la wund lan la mën a indi ci ay ci ay ci ay njeexital loolu ñuy jàngat pour mën a comprendre euh, procédé yi fan la ñuy jaar ba def li ñuy def. xam nga Moustapha euh, député le boo xam ne ci bañeeru Benno Bokk Yaakaar la demee assemblée nationale biñ ko falee ci liste nationale bi ci seen i biir ay négociations parce que moom c'était un cadre de APR membre fondateur de Alliance pour la République donc Alliance pour la République nekk ci Benno Bokk Yaakaar mu doon coalition bi ko yóbbuwoon assemblée nationale ci ci biir seen biir négociation ñu jox ko

mom dàq nañ ko ci biir parti bi ak coalition bi mais mënuñu ko dàq en tant que député parce que constitution bi article 60 le sumu ma jumut daf ne député bu démissionné ci sa parti politique da ngay perdre ce mandat loolu benn disposition bu yàgg la ci suñu dispositif constitutionnel bu yàgg yàgg loolu jamonoy Ablaye à bi mu nekk si opposition bi la woon bi loolu amee ñoom waa APR bi ko mu nekk euh, député te constitution bi waxul ñu ñu ko comme membre de l'APR te constitution bi waxul ne buñ la dàqee da ngay perdre sa mandat ñoom ñu jaaxle xamatuñ fan la ñuy taxaw parce que waa malgré que bokkatul APR day resté quand même troisième personnalité de la République du Sénégal kon tey jii mardi day taal mara day taal yàlla na yéex bu yàlla defoon Moustapha Cissé Lo euh, bu yàlla defoon Moustapha Niass nga xam ne président assemblée nationale tey jii mu indisponible su boobaa automatiquement Moustapha Cissé Lo mooy nekk président de l'Assemblée nationale même bu pour quelque temps y bu yalla développement aussi dire diir boobu noonu président de la république Macky Sall indisponible aussi kon Moustapha Cissé Lo day daal di yéeg président de la république du Sénégal même pour quelque temps là mais lolu arrangé wul APR arrangé wul alliance pour la république lolu arrangé wul waa Benno Bokk Yaakaar donc ñom ñi xol nan lañ pas def ba faire perdre à Moustapha Cisselo son mandat de député. légui waaw. moi man c'est mhm. euh, un pays comme le Sénégal parce que mhm. exclusion d'un parti politique c'est pas quelque chose d'aussi exceptionnel que ça parce que day am. Mhm. que suñu dispositif réglementaire ou l'autre. comment est-ce possible. alors exclusion parti politique de am procédure xam nga Moustapha Cisselo

loolu tamit dafa waroon a xew donc ñoom violé nañ loolu mais man loolu bettu ma garaawul ci man parce que euh, comme ni ko Bouly doon sànq rek euh, Moustapha Diakhaté ci même condition yooyu lañ ko dàqee déglu wuñ ko ba tey ji Moustapha Diakhaté layoowul te dàq nañ ko mais man li ma gën a tiital Alphonse li ma tiital mooy constitution bi nga xam ne euh, ci ay njuuj njaaj ci ay tricherie fexe nañ ñoom boo yokk ci loo xam ne bokk ci woon parce que ñoom ñu ngi naan ci version bi nga xam ne moo nekk ci site présidence de la république du Sénégal semaine dernière léegi corrigé waat nañ ko mais version bi nekkoon ci présidence de la république site internet bu présidence de la république du Sénégal article 60, ñoom dañ ne képp koo xamante ne bii dàq nañ la ci sa parti politique dañ ko cay yokk ku ñu dàq ci sa parti politique da ngay perdre sa mandat député te constitution bi nga xam ne ñun moom lañ moom lañ voté woon en 2017 par référendum mhm. waxul woon loolu daf ne woon ku démissionné da ngay perdre sa mandat reprendre disposition boo xam ne c'est une disposition historique ci sunu constitution parce que jamono yi Ablaye Wade di opposé wu Abdou Diouf ci jamono yooyu la la la la Senghor la sax su ma ci jamono yooyu leen dugaloon non Abdou Diouf la Abdou Diouf la c'est sûr Abdou Diouf la jamono yooyu leen dugal disposition boobu ci suñu biir constitution muy député bu dem élection ànd ak benn parti politique nga fexe ba parti bi gagné ñu fal la député nga njuuj daaj daal di démissionné ci parti bi da ngay perdre sa mandat loolu rek la constitution bi waxoon te loolu lañ voté waat en 2017 mais ñoom si site internet bi fexe nañ ba yokk ci disposition boobu noonu pour nelawal nit ñi xam nga lan moo tax Alphonse ma expliqué la ko mm-hmm. te foofu laay daanalee li tax mooy euh, ñoom bi ñu xamee ni Moustapha que mun naa nekk président de la République si tax anam que mu leen ko expliqué Nous, mënu ñoo modifier règlement intérieur de Assemblée nationale parce que boo modifier règlement intérieur international modification bi mënul nekk lu rétroactif maanaam loo xam ne day appliqué wu ay fait yoo xam ne xew avant te comme ñoom dàq bi moom moo jiitu modification bi ah, ñu xam ne lii mënul nekk duñ modifier règlement intérieur donc nañ jéem a xool nu ñuy modifier constitution bi muy poser beneen problème quelle est la vraie version de la constitution du Sénégal ban version moo baax. fi mu nekk nii professeur Ngouda Mboup mu ngi naan ministre de la justice ne publier la vraie version de la constitution du Sénégal Nous mais mais extrêmement dangereux. oui. que que la constitution du Sénégal est des versions. Mm-hmm. lolo un pays a des fondamentaux un pays a des soubassements un pays a un socle loo xamante ni kër dafa am bànqaas ci lépp lu nit di mën a tabax ci bànqaas bobu lañ ci saytu ci lañ koy tabaxé ci lañ koy euh té constitution dafa am ay charte yo xamanteni ci lañ koy laale ak ci lañ koy bañ a laale dëgg la nag suñuy constitution ci Afrique luñ koy laal bëri na ba ñëpp jappé ne est-ce que du crayon lañ ko bindé ku ñëw rek njiitu réew bu ñëw rek taayal ko boppam waaye nous jóg ni rek ci ay ci benn guddi ay ñaari nit ba tey ay constitutionnaliste di jóg di xalaat ni constitution au Sénégal dafa am ay version loolu loolu bu fekkee lu am la que ni constitution Sénégal dafa am ay version Nous loolu ñu ministre de la justice nous le président de la République interpeller l'Assemblée nationale et interpeller même le président Ousmane Sonko qui est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale est-ce que la Constitution Sénégal, il y a des versions ou il y a une seule version, même si elle a été tripatouée Bolé, ma peut-être parce que man dama ah, mais je crois pas du tout que la constitution Sénégal a une version. Euh liñu liñu wara il y a une tentative de manipulation ah, de, la constitution à des à des à des fins politico-politiciennes. Lolo amna moy Daouda lu mu souligné sànq avons publié ko publier nuñu publier euh, benn version ci surtout surtout président de la république bu jéem a nax nit ñi mm-hmm. mais mënuma mënuma comprendre mënuma accepter ça que euh, un pays comme le Sénégal mo am plusieurs versions de constitution. xam nga man toujours damay damay damay sourire damay reetaan suma ma gisee sama naataangoo yi bu ñu déggee loo xam ne dafa grave dafa invra invraisemblable ñuy montrer encore de l'étonnement ñuy montrons encore que ni affaire bi jaaxal na ne lii mënul nekk mais saa waay barki Dembo Ndiaye génne wuñ fi décret Le décret bi mooy instauré honoraria décret bi jaar ci procédure bi mu war a jaar yëpp ba ay fonctionnaires de l'État, du ministère des finances ay fonctionnaire du ministère des finances ñu envoyé leen ko comme ni ñu leen daan envoyé yeneen décret yeeg yeneen disposition légale ñu jot ko ñoom ñu authentifié ko ne décret bi décret bu baax la présidence de la république deful démenti ne décret bi baaxul non wax nga dëgg Daouda mais décret poids bu mu am ak constitution du ben décret président de la République moy moy jóg nii mais constitution peuple bi moo ko moom. fondamental la comme li mu ko waxe mais xam Alphonse lolu xam nga xam nga lan nga wara jang ci lolu Alphonse. Euh, hmm? Alphonse côté boobu mun naa ci bokk dara tuuti que ni avec ce gouvernement là quand même euh, lu ne mun na possible mais à la limite man je reste toujours réservé mais quand même buñ ñu ba am aussi ay version wu décret loolu loolu tamit dund nañ ko sous Macky Sall lañ ko dund loolu aussi c'est en fait le son le plus important li gën a baax ci suñu tampon lu gën a baax ci suñu signature mooy mooy li engagé Sénégal tey c'est Macky Sall qui engage la signature du Sénégal décret décret du arrêté du lu amul doole la constitution moo dooleel décret. boo xasee mais constitution

mun nañu mun nañu njuuj daal mun nañu def lu nekk mais quand même suñu bu ñu ci am ay parfois ñu dribble ñu nag xam nga indi ñu ay loo xam dañ koy voté du ñu expliqué yeneen yu bëri ci suuf voté loo ni ñi ni ñi voté après la ñuy comprendre comme quoi que ni euh, voilà y avait y avait beaucoup de sous mais ba léegi askan bi jóg nañ voté. xam nga man ma ma la nga daaneel daaw da nga may ma parce que. constitution bo amé plusieurs versions ñiy jàngale droit constitutionnel ci ban version la ñuy basé ko pour droits. droit bi. mais Alphonse néna le professeur ngoude Mboup ci a nga xamné mom le nañ ni Sénégal euh, ñi dàq expliquer constitution ak contentieux constitutionnel ci la bokk mom lool mom ñëpp nangul nañ ko ko moom si jëm boppam nee est-ce que est-ce que jot na mu na def défi est-ce qu'on peut faire le défi euh, utiliser tous les moyens possibles pour inviter le docteur euh, Ngouda Mboup dans notre émission loolu dinañ ci dox bu soobee yàlla mais ma daaneel ma daaneel rek ma daaneel pour bàyyi leen ngeen continuer seen seen émission wax leen wax li ma doon wax sànq ne jaratul ñuy jaaxle Sénégal bu lu gouvernement bi luñ ne moo ko def rek Alphonse jàppal ni moo ko def parce que ginnaaw ginnaaw décret bi déggoon nañ fi aussi rapport IGE boo xam ne nee nañ dafa réer ci ci ci hmm. diggante diggante génn bureau jàdd couloir jàndaat couloir dugg si bureau déposé rapport rapport ba fallait réeré fii lañ ko dégg Alphonse fii muy Sénégal njaay suñu dëkk donc buñ la ne buñ la ne gars yi tripatouillé nañ constitution bi artificiellement te qui soulever le lièvre c' est pas n'importe qui c' est pas Ndiaga Diop c' est pas Moussa Ndiaye c' est pas Ablaye Simal wala keneen Abdoul Mbaye ancien premier ministre du Sénégal moo soulever le lièvre bu ko waxul woon tey jii nii kenn du ko xam kon tey Moustapha Cissé faagal nañ faagal nañ ko dàq nañ ko bu yàgg man daal li may wax mooy euh, ñoom dàq nañ Moustapha Cissé ñoo xam lu tax ñu dàq ko loolu ñoom loolu la ñoom la concerne mais nag li yàlla dogal moom te moom mu nekk ko muy premier vice président de l' assemblée nationale loolu moom mënuñu ci dara nañ nangu rek te xool nuñ koy gérer jaajëf. merci merci beaucoup. Euh, merci waaw merci beaucoup. merci beaucoup Daouda euh, Alphonse ça man ça me pose un problème encore de de démocratie ci mhm. euh, liberté Tu vois le respect des règles démocratiques dans un parti parce que quand on dit la démocratie dans un parti c'est la contradiction c'est accepter qu'il y ait euh, des personnes qui ont ne mënuñu qui euh, position mais l'essentiel est d'être parce que quand on est dans un parti aussi on partage euh, la philosophie du parti on peut ne pas s'accepter sur certaines choses mais la majeure partie de de nos de nos partis politiques au Sénégal il y a un problème euh, madame, de personnalité c'est-à-dire c'est une personne qui gère le parti moom comme ko ou wala au départ de moo jóg ci convaincre nit à la limite comme bis fi ça aujourd'hui par exemple je mu Abdoulaye Wade jógee bon voilà euh, les gens pensent que ça doit être un héritage d'un fils à un père ou bien même euh, comment dire, des gens qui sont battus et ce que je veux dire pour ne pas être compliqué moi que ni vous fekkee yow juboo ak ki un rek li ñuy ñëkk xalaat mooy lañ la Nous, qui sommes, est-ce que nous c'est des partis politiques ou c'est des propriétés Wow, question pour am solo hein, parce que euh, contradiction interne euh, démocratie interne les parti politique ou organisme bu mënta nekk dafa am solo que les gens puissent euh, wax sen khalat am liberté wax sen khalat bu fekkente ne d'accord ci bon bu fekkente même si kaw euh, si c'est Lo c'est un peu c'est un peu particulier mais si si si on revient à nos thèmes qui qui concerne qui concerne la loyauté en politique mm. euh, dañuy interroger quand même démocratie ci biir parti politique parce que parti nga xamantene c'est des partis euh nga xamante ay nit ñoo mm. c'est la propriété d'une personne euh, c'est le cas du, PDS où on voit vraiment la présence de la forte présence du président Ablaye qui parti boobu euh, mu jël décision décisions ça remet en cause la survie euh, dans le futur du parti il a rien de parti comme ça qui sont comme ça dans le pays c'est des personnalités fortes qui les ont créées mm-hmm. euh, donc problème démocratie interne Il daf daf ou quoi mais discipline au parti

dans mes c'est comme si la conscience de l'homme sénégalais société bi dafay influencer le parti parti politique duñu ay ce n'est pas c'est aussi du ay entreprise privée Tout nous nous les partis comme des propriétés privées il faut que les gens puissent quand même ramener... Euh, euh, c'est un c'est un lieu de grand place boo xamante grand place bi ngay dugg grand place bi tant que yaa ngi yaru bon bañ a saaga nit ñi mais tu es libre quand même de dire li nga mais dans les partis yaa am ñoo xamante ils ne sont pas libres de dire lu ñu pour ça ñu wax lu ñu xalaat rek dañ leen di dañ leen di boddi wala dañuy sax bañ jox jox la poste de responsabilité parce que ñuy bañ euh, ëllëg ñu rebelle alors que mhm. euh, par exemple boo xoolee fii lu mel États-Unis pour euh, élection présidentielle parti démocratique parti démocrate comme républicain dañuy gis ci biir parti bi ay vingt candidats au primaire. pourtant amul kenn ku ci taxaw taxawaay boo xamante ni dañuy xalaat génne la parti bi. Mhm. ça c'est important c'est est des leçons de démocratie te pourtant dañuy dañuy xëccoo ci ay wax xëccoo ci ay débat am ay positionnement am ay xale yu topp ñii xale yu topp ñii mag yu topp ñii mais au finish on va avoir un seul candidat. Mhm. te kenn du génn parti ça c'est important c'est la démocratie vivante kon yaakaar naa ni nañ ci bàyyiwaat xel et encore une fois. Euh, le cas Cicelo est, le deuxième cas d'exclusion dans le parti de Macky Sall. Mais aussi, Macky Sall, quand même, euh, cela montre que lui et ses, et acolytes euh, nous deux coups rivalité. Autant au sein de leur parti que dans l'opposition. L'exclusion de Ousmane Sonko ou bien la radiation de Sonko en 2016, ou 2016, est une confirmation que Macky Sall nous deux la rivalité. Aujourd'hui,

Euh, dem ci sunu deuxième la waxtaan muy. la waaw waaw avant avant ñu jàll nga mayama rek pour dire que si Celo nekkuñu di di nekkuñu di ko défendre parce que voilà c'est pas c'est pas quelqu'un qui qui qui mérite à mon sens que ñu ñu ñu ñu ñu défendre ko mais conception euh, état ak conception parti politique bu mu yor. Mhm. ak ñeneen sénégalais ñu ñu ñu ko yor. loolu mooy andi problème bi loolu mooy fondement problème bi parce que euh, problème problème nan euh, man dama beaucoup ci ñi nga sos parti mhm. euh, donc décidément forcément man je dois damay am dara il faut ñu sédalé gâteau bi mo war ci am andi problème et c'est ça qui fait que lolu day yott parti tous les partis y compris ça manam c'est pas parce que yow euh, da nga bok ci ñi nga xamantene ne dañoo dañoo dañoo samp parti bi te da ngay ñëw def une forme de chantage mm-hmm. xam nga buñ la joxul nga commencer di sag di naan di menacer naan damay tas parti bi xam nga conception politique bobu moy andi problème yi te tous les partis doivent faire attention à lolu parce que buñ ko régler wul li nga xamantene moy dal APR actuellement mun na dal benen parti ëlëk Ouais. le Bon, demain mhm. peut-être euh, bon, il ne mérite pas. Euh, Mais demain si euh, sénégalais là aussi n'est pas n'importe qui si c'est l'ancien président du parlement de la CDAO. Si c'est là c'est c'est 4 à 5 législatures du Sénégal. Depuis les années 80-90, il y a beaucoup de législatures, l'Assemblée nationale du Sénégal. Si c'est l'eau, aujourd'hui ce su fekkee nit bëgg na lor Sénégal ou wala nit bëgg euh, attaquer Sénégal boo amee le l'eau, comme allié tu as beaucoup d'informations sur lesquelles tu peux passer pour euh, naxu sa réew mi euh, côté mun nañ le vocabulaire am mun le ñaawlu nu muy nu mais à la limite aussi voilà c'est un moyen motard, cela suffit même le fait que si c'est l'eau, léegi mu ngi dox ay Alphonse tey man ak yow wala keneen wala Ousmane Sonko wala keneen bu waxul 15 1 lu Cissé Lo wax yëkkati ko ci kàddu tu pas passer la nuit à, à la belle étoile. man conception la conception d'un état bi nga xamante ne pàccoo la chaque fois yow boo ci amul sa sa sa nga créer problème sama problème man jaaru pour man foofu moom leer parce que tamit mhm. loolu mooy mooy ñi nga les lobbies dans les partis au sein des partis nous, tes parti di les xam di euh, euh, imposer parce que tout simplement nous ne finit pas jaar parti mais heureusement que euh, le PASTEF n'est pas bon je dirais que le PASTEF à la limite c'est un parti qui nga xam à ci bo dugal loxo amul kenn a un taxaw tey ne man def million millions que j'ai voilà j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ce droit là le droit là c'est là heureusement que ça a été très tôt euh, euh, euh, comment exclus dans la pensée collective, en tout cas des militants de passé. Et j'espère que l'ensemble des militants le comprennent ainsi. Voilà. Maintenant que l'air amna solo la des affaires Alphonse, euh affaire tay est-ce que bon des affaires,

Euh, mais Babacar Ngom ñii di ko xolé xoolee lek lekkatu euh, riba manam xam nga nit koo ni il est voilà euh, dafa togn ay baykat ban ban jangar nga am sur la question des affaires au Sénégal. Wow, question difficile hein? euh, honnêtement, je suis je suis très euh, très gêné en tout cas pour pour voir qui lolo parce que m'a, ma, m'a, opinion dafa tranché wul quoi. Mm, sama xalaat dafa tranché parce que mm, euh, man daal des gens comme Baba Ngom euh, qui qui qui sont des des Sénégalais qui investissent euh, au Sénégal qui créent de l'emploi au Sénégal mm. et en même temps en même temps je trouve profondément injuste que ñu dem fekk ay nit ñu ñu nangu seen suuf soosu jox ko jox ko keneen hmm. euh, foofu moom man lu may interroger mooy suñu loi suñu loi ak suñu doxalin administration hmm. fala fala fala source bi nekk source des problèmes nekk parce que hmm. euh, mën nga nekk investisseur bu li yow mën nga tey mën nga am sa projet tey nga dem bëgg a investir nga dem gis benn benn commune benn maire gars yi defal affectation am dans des conditions euh, qui te semblent euh, correctes, hein, qui suivent les procédures normales. Mais ben, par quelques temps après, ils a un non souci, ma donc est-ce que Babacar Ngom moom moo dem ci boppam Nan, man y a des soucis, d'une façon qui est ne jaarul ci procédure Voilà, wala dafa jaar ci procédure yi procédures procédure bi faille mm-hmm. y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné qui fait que au final dañ ko jox euh, suuf bi nga xamantene ñeneen ñoko mom donc je suis assez partagé par rapport par rapport à lolu euh d'autant plus que légui légui dañuy gis euh d'autres hommes d'affaires étrangers nga xamantene ñom dañuy ñëw ñu jox leen suuf bu dul jeex. Mm-hmm. te té té té te ça ça crée pas le même le même le même le même problème donc euh dañu xoolaat quand même suñu suñu suñu réglementation en terme en terme de foncier nous euh, procédure en termes d'affectation de terre pour éviter que kayo ou kayo yooyu euh, ñëwaat quoi. en tout cas euh, man li nga wax mom la ci nek am il faut être perplexe mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. aujourd'hui si Nengler est devenu aussi populaire et toutes les chaînes de télévision ou bien les radiostations ou bien la presse écrite di ci wax ba tey euh, des avocats qui se lèvent ou bien euh, ñu gis ay comment dirais-je euh, l'association des maires du Sénégal ministre même Abdou Karim Fofana jóg dem ba fofu quand même a eu à faire un travail excellent sur le cadre d'anglais. Ça fait plus de un an et quelques. Il est l'un des Sénégalais qui a pris ce dossier-là, à qui la, le village de Nengler a soumis ce projet. Comme je dis qu'aujourd'hui, quand même, euh, le Mouboukon Tamit, parce que il voulait que cela devienne euh, une question nationale pour que nous puissions juger pour que nous puissions juger ba pare ñu euh, fan la ñu trouver un terrain d'avance. parce que c'est pas forcément euh, que ni waaw pas Babacar mom dem mais est-ce que Babacar mom fu mu fotee nekkul woon dem rek traiter avec l'administration et ne pas traiter avec les paysans xam nga dafa am ku ma déglu mu ne

Euh, le fait que rek sa maam ñëw gor benn garab yow loolu daf lay topp topp say sët ci wàllum euh, relation émotionnelle historique social ci mhm. suuf si dafay dafay am côté boobu dañ ko fàtte ak baykat yi dëgg la baykat yi amuñu moyen bu ñu exploité loolu yëpp mais mais nag ñoom ñoo gor zone boobu ba zone boobu tey nit mën a ñëw teg ci bët est-ce que tey Babacar Ngom bu newaan delluwaat dem ci mag ñi dem ci kilifa yi toog ak mag ñi ne leen man kat peut-être juum naa benn côté mais seen doom yi xool leen xool leen xale conditions yi demee école ndeng la amul amul dispensaire xool leen amul tali loo manque man bëgg naa ñëw su ma investir fii loolu yëpp ma tekk ma jël ko en charge parce que c'est ça aussi que font les grandes entreprises on a besoin des Babacar Ngom au Sénégal un autre exemple patent le cas le jeune Thione mm-hmm. Alphonse euh, de États-Unis nous, dans la petite côte de ce monde affaire un espace bu pas mais est-ce que octobre jour dans deux ans trois ans kenn jóg ne ñu jox par exemple am de nous de alors que les gens aujourd'hui sont en train de féliciter yóbbu na fa ay oto yoo xam ne oto yi ñoo yóbbu xale yi dem jàngi benn xale tardetul il a donné des bourses retombées yu muy am économiquement dafa am benn pourcentage bu mu ci jël def ko ay bourses pour village yi village environnant yi nga xam ñom ñom momul espace yu ñu mu jubóog ñom jënd ko avec un un prix très normal mais ëllëg est ce que kenn mënul keneen mënul jóg créer fa benn contentieux alors que aujourd'hui il est en train de créer un emploi direct pour les jeunes qui sont là-bas kon encore une fois ci mu me euh nous faire trouver un terrain d'attente, créer des Babacar mais aussi des Babacar qui sont patriotiques Nous savons que l'eau investir investir da ngay bëgg tamit sa askan juboo ak yow sa askan gunge la ci ci ci investissement bi xam nga parce que c'est pas des Guinéens c'est pas des Maliens c'est pas des Burkinabés peut-être que des Burkinabés vont travailler là-bas demain parce que c'est l'Afrique mais d'abord Sénégalais yi gis seen demain te man quand on essaie quand Babacar Ngom euh, va on euh, peut revenir à xam nga maanaam ci ci terme yi gën a baax. ci wàllum mhm. dal xam tout tout peut se régler. Euh, mhm. mën nañ trouver solution. mais Alphonse lu ma lay poser question mooy que ni aussi le papier la légalité le papier a donné à beaucoup de gens une légalité alors que sur le plan sociétal dañoo tooñ. que mais lu nekk Sénégal. foofu c'est la c'est la responsabilité du législateur pour mu def ay lois yi nga xamantene day day le moins de dégâts possible parce que man nit ki ñëw na demander demander euh, autorisation demander ay ay ay souf mu jaar ci procédure man procédure il y a quelque chose qui n'a pas qui n'a pas bien fonctionné parce que mënoo fekk fi nga à si j'ai bien compris l'histoire parce que euh, dama mon dama dama kaa déglu j'ai suivi euh, comme ni nga ko Diomaye euh, Faye qui a expliqué en détail en détail le problème euh, fi nga xamante ne ñi fi dañ fa doon te ñu ngi koy jaajëfee bu baax parce que voilà c'est mooy mooy rôle homme politique de défendre ñi nga xamante ils sont victimes d'injustice mais euh, nous, munee ñëw jël suuf si nga xamante ne ay nit ñu ngi ko doon exploiter yow nga jël suuf euh, affecté ko nit ba am ci bail un petit am ci titre foncier sans pour autant que le problème soit euh, nga am en tout cas ngeen un benn accord avec ñi nga xamante exploité ñooy exploiter sous soosu foofu moom y' a y' a un problème quoi te te moom Babacar il doit pas être le seul qu'on va qu'on va accuser parce que bu fekkente ne des gens dans la procédure d'attribution, il y a une procédure procédures pour accélérer les choses mm-hmm. on peut dire que moom est une pousse pour ñu accélérer mais il doit pas être le seul euh, si on veut que des cas comme ça ne se reproduisent pas il faut vraiment ñu xool chaîne bi yëpp ñu ban maillon la fay bi nek ñu jëm ko saafara fofu parce que buñ ko buñ ko bu focaliser ci ki nga xamantene mo mo mo mo am ci au final on va rater quelque chose te qui yoy dañuy répéter wu dans l'avenir. Yeah, dañuy répéter wu té euh, Babacar mom aujourd'hui légalement il est propriétaire de terre parce que dafa titre foncier lolu mom dafa dafa dafa dafa top toute la chaîne té ku dem ba top toute la chaîne bo amé bail sax mais mais dafa dem titre c'est autre chose même la loi. mais nañu vraiment entre sénégalais comme tu dis. Euh, je pense que moi tamit euh, c'est un sénégalais donc nous nañu toog c'est euh, et puis nous trouvons une solution d'autant plus que. comme je disais, ce ko c'est pas 75 hectares de moins qui vont qui vont qui vont poser un problème mais mm. comme moi tamit nous mu ko intervention c'est que mm. Euh, titre foncier bi c'est moo ko moom du Babacar Ngom en tant que personne moko donc c'est une société donc il y a aussi yenn difficulté aussi dans ce sens là quoi mais buñu ñu mom moom dinañ dinañ am solution et aussi man limay wax euh, li may wax waa Ndingler mooy que ni euh, waa Ndingler aussi ils n'ont qu'à poser ñu poser wu la question à savoir ben intérêt lañu mëna am aussi sur l'exploitation des soixante-quinze hectares ñu bañ a rek ensemble ni japp benn mbir rek parce que ça c'est beaucoup d'espace Et nous, nous posons aussi l'avenir de ces espaces là Nous posons aussi aujourd'hui un consensus entre nous et Babacar Ngom benn parole donnée des documents signés sur le restant de la vie de l'existence en tout cas de cette entreprise là dans cette zone là de garantir l'avenir des enfants aux alentours L'autre aussi j'aimerais vraiment nous ñu poser question questions peut-être bu nous poser question questions peut-être que nous xoolee angle boobu ils vont trouver un terrain avec Babacar Ngom et ça sera dans l'intérêt du Sénégal et ça sera dans l'intérêt parce que aussi un titre foncier bu que dafa le a du Sénégal euh, jayo jaru xam nga euh, Babacar c'est l'intérêt des Sénégalais mais je tax a aussi waa Angleterre gis ni nous tam mën nañu ci gis seen peut-être commencer à côté boobu rek bañ a gis parce que avez bay suuf boo xamante Alphonse à la fin de l'année 100 000 nga wala ay 150 000, nga ci am alors que tey mun nga am say doom di fayee ko chaque weer cent wala deux par mois xam nga ak tamit nga nar ci am avantage yoo ñu defaral sa gox gox la école defaral le vraiment indi le courant indi le lepp je crois que aussi il faut poser le pour et le contre peut-être dinañ trouver solution et Babacar Ngom on le conseille d'être patriote xam nga dans le sens d'aimer son pays et de d'essayer de trouver un consensus avec les paysans et que paysans yi tamit ñu xol euh, ñom tamit euh, à long terme qu'est-ce que ça peut apporter euh, ci euh, ci wàllum qui euh, ci wàllum retombée économique dafay am solo trop. waaw te kaaw Babacar moom waruñu waruñu faire oublier ni nga xamante ne yeneen cas hmm. de cupidité hein, dans la dans dans dans les dans la distribution des terres en tout cas l'accaparement des terres on a on a on a parlé récemment du du du littoral sénégalais nga xamante ne gars dañ ko doon pàccoo hmm. xam nga ñu jaar qui a des procédures qui ne sont pas normales on va dire gars gars joxe littoral bi ko hommes d'affaires etc. Donc donc vous tamit ça pose ça pose le même problème le problème de la gouvernance au Sénégal de sorte que euh, voilà quelqu'un qui est proche du pouvoir mon des libertés mu a des raccourcis pour améliorer des privilèges sans passer par les procédures par les procédures normales donc le loolu problème donc gouvernance bi euh, moi ma encourager yenn comportement yi tamit euh, au niveau au niveau de l'administration euh, voilà mu andi ay problème au final et et voilà donc pour moi, la question est tellement tellement complexe et elle est globale aussi parce que aussi bien notre arsenal juridique on a une revoir côté bobu et aussi la, la, gouvernance, en tout cas, les pratiques qui au Sénégal, c'est un pays qui n'a pas de, qui n'a pas de, qui n'a pas de loi. Nous donnons affaire euh, éventuellement euh, des versions de constitution. Euh, ça donne envie de dire, bon, ok, si nous-mêmes, on n'est pas capable de faire des lois et, on les respecte, nous coloniser parce que c'est du n'importe quoi ce qui se passe dans ce pays-là à longueur de journée. chaque jour, on a lois. C'est ça, euh, c'est comme n'importe quoi euh, ce qui se passe dans ce pays-là. À longueur de journée, Bougazeli, Nyeleni, le petit Ndjoudjad, faux billets, ce pays est devenu vraiment euh, voilà, le terrain de, des faits divers. Il y a des gens yo xamanteni ay jamono ci dina dina Sénégal mais c'est dans ce même pays en France le yakar de di parce qu'il y a des gens qu'on ne nous qu'on ne nous apprenne pas am nañ doomu nous yoo Sénégal nous sommes des ñu Nous ay exemple exemples ay mhm. exemple de réussite à côté des gens qui ñi nga xam ñu ngi sàcc alal réew mi ñu ngi luubal alal réew mi ngi des comportements euh, qui ne sont pas des références c'est à côté de ces personnes là qu'il y a aussi des Sénégalais dignes qui ont grandi qui ont réussi réussi réussir là, la wax de pas avoir réussi, mais qui ont réussi le cas de Feu Ndiaye qui vient de nous quitter euh, le 10 vendredi passé, mu wàcc léegi à l'âge de 89 ans. Tay bu ñu Ndiaye Ndiagandiaï xel yëpp dem ci Auto oto Ndiaye. Auto bi c'est la c'est une marque allemande Mercedes mu ngi nek la 308D moo kon marque auto bi. Euh, Ndiaga Ndiaye pour ñu ko xamul Sénégalais c'est un ni la wax dafa door Louga Darou Musti un té la ñak à l'âge de 2 ans dem daara jóge daara xam nga jàngi euh, mu màgg papam yóbbu ko ba mu jógee daara dem Saint-Louis Saint-Louis la nekkoon apprenti diggante Saint-Louis Dakar ba yàlla def mu am permis am vers les années cinquante euh, mu commencé la njëkk ba mu amee ba mu demee ba am permis am ba mu demee ba dajale tuuti taxi la njëkk def di def ay taxi diggante Dakar Dakar Thiès dak euh, Saint-Louis Thiès Dakar ba yàlla def mu jëkk commencé di yëngu ci Ndiaga la 308 ba mu ba dem di ko di ko indi Euh, ba mu oto marchandise kese mo taxone ñu defaral ko Allemagne mais ba mu ñëw Sénégal moom mu mettre des mécaniciens en place ñu ñu ñu ñu réformer ko defaraat biiram bi xam nga def ci ay bancs yu nice mu commencé di desservir Sénégal. en 86 déjà moom amoon na ci 305 355 voitures yo xam ne ay njëkk jaay la woon biir Sénégal à un moment donné. ñu monopoliser le transport urbain sénégalais à 90% ma fàttali le ma mënu lire ci mom la grève de sauvetage de 1985 grève boobu dafa bettoon état bi bett état bi bett bu doy waar sauvetage bi yëpp dem grève état bi xamul lu muy def l'administration doit fonctionner l'état le pays doit se déplacer Qui non, non, la Ndiaga Ndiaye jël initiative état bi mu consulter ne ko dama bëgg nga desservir le transport public fa ba fii ak ñuy am entente ak waa et il l'a fait et à mm-hmm. partir de cela euh, yow ñun gis nañu ñanga nga yi dem ci luuma jawbe yi ñum ñuy desservir à l'intérieur aussi au delà de desservir Dakar bi def transport urbain bi mais aussi dañuy def transport interurbain kon euh, Alphonse euh, il est devenu un milliardaire qui lo xamanteni euh yaakaar naa ni dañ ko war a delloo Sénégal c'est un cas de réussite musul génn Sénégal il a grandi au Sénégal il a réussi au Sénégal comme ay États-Unis ñu amee seen i ils ont réussi sur le plan économique Nous aussi on a des références économiques voilà des modèles qui ont dans les écoles de business possibles. parce que ce c'est pas forcément les gens qui ont fait des études ou qui qui sont dans les banques qui sont des références lii c'est l'entrepreneuriat euh, tout à fait euh, tout à fait Nous nga Nous mhm. en tout cas à la voix de à la voix de euh, ñu ngi delloo njukkal en tout cas Ndiaga Ndiaye et ñu ngi masaw famille am et il a aussi su former sa famille doomam mu ngi joxe benn anecdote nee ne euh, papam da ko mus a euh, woo pour mu ñëw rendez-vous euh, à à Thiaroye garage bu Thiaroye bi nee ne cinq heures du matin la ko papam ne woon na ko fa fekk papa ji cinq heures fekk na ko fa mais moom il est arrivé à cinq heures vingt cinq minutes ne papa ji mu génne dafa bënn ñett ñeenti pneu otom yëpp ne ko bu fekkee da ngaa bëgg a liggéey wala da ngaa bëgg a caaxaan nga waxoon parce que man awma temps caaxaan te lii du caaxaan laa ko tabaxee un témoignage fort d'une personnalité qui veut inculquer que le travail et la réussite ne se donnent pas, ça s'acquiert. Comme quoi, nous dafa baaxoon ci une cupidité dans les affaires Nous Nous nous nous aussi mm. on que connu. voilà des exemples aussi yi nga tenu, exemple nous ñu suivre que nous, avons ak finalement yi nga exactement la la la valeur travail hein. Vous voulez vraiment hommage bi nga bi ko def c'est c'est du ma ci parce que wax nga lépp euh, des gens comme ça, on doit, les, on, on doit les mettre en valeur, des gens qui, qui, valorisent le travail, le sérieux dans le travail, l'innovation. Parce que nous question avons un dem euh, modèle modèle let's say Allemagne bu mu mais contexte national mm. euh, modifier mm. pour pour, pour, mettre vraiment en phase avec les gens avec le besoin de de mm. le besoin de se déplacer et la façon de se déplacer lolo tax mu am succès donc vraiment innovation travail et lolo la ñuy woote chaque fois comme comme comme les valeurs qu'on doit mettre en avant et non les anti-valeurs qui consistent à dire nit ki buy liggéey nga naan noo kii dafa gëm service wala ñi di naan noo duñ ko duñ ko duñ ko liggéey dañ koy kon des gens qui se lèvent le matin di dem di lijanti xaalis anti-valeurs yooyu de côté mettre en valeur des gens qui aiment le travail qui respectent le travail et qui innovent pour le pays. tout à fait tout à fait alors loolu buñ ci waxé ñu dem ci dernier partie waxtan bi muy euh, euh ko xamanteni encore une fois un autre exemple euh, de ñak xam ñak bëgg sa réew euh, à la limite tu te dis ce gouvernement là vit des scandales buñ amul scandale ñu buñ tundu buñu amul buñ ñu deful njombe en fait duñu def lu ñu mën loolu lañu mën en fait njombe lañu mën njombe xam à la limite loolu lañu xam quoi c'est ça c'est ça en fait euh, équipe voir comme c'est ça leur identité ils ne savent pas faire du bien ils ne savent pas faire euh, de bonnes choses ils ne savent pas diriger dans euh, comment dirais-je sans la maladresse en fait Abdou Karim Sall ministre de l'environnement la question des gazelles oryx la question du manque d'eau mais Alphonse est-ce que yow jot nga taataan tuuti affaire l'orexie, gazel orex mandal, je ne sais pas dans quel pays on est quoi si si si si des choses comme ça se passent dans, mon pays le Sénégal peut-être que bon le Sénégal n'est plus le Sénégal c'est pas a ni c'est c'est pas compréhensible comment un État parce que l'orexie, euh, les animaux là euh, Israël pays Israël moko may Sénégal hmm. may ko ñëpp ah le peuple sénégalais hmm. ministre de l'environnement jël décision que naan moom day jël li nga xamante ne espèce boobu espèce protégée bi ñu may peuple sénégalais moom da koy jël yobuko ko dans sa réserve privée hmm. mais dans quel pays on est ba pare waa Sénégal ba ñaar ki kii yooyu ñu perte ñu perte ci ñaar donc non seulement jalgati na yoon détourné na li nga xamante ne mooy alalu alalu Sénégal parce que les espèces protégées ils ont une c'est une valeur parce que il y yenn une espèce dans ton pays des xëcc ay touristes day en tout cas une économie autour autour de de certaines espèces qui sont protégées donc lolu la xaañ Sénégal beaucoup en terme dans son truc privé Ben pareil, prend même pas le soin de transporter ces animaux là dans de bonnes conditions Ben ñaar ci animaux euh, euh, ñu donc man encore une fois euh, ce pays-là m'inquiète parce que la, depuis que Macky Sall est là, il y a des choses invraisemblables qui se passent et les Sénégalais, j'ai l'impression, ils sont résignés par rapport à l'OLU. Ça, ne présage pas de, de, de, quelque chose de bien dans l'avenir pour notre pays. Mais, Alphonse, un pays sérieux, vous ramenez, si nga ba Dubaï ay Qatar yi Émirats yi que ni pétrole kese du avenir bi ils ont investi pour le dans le tourisme Ils créer loo xamante ni nit ñi dañuy def obligé wu ñëw ñëw yow milliards pour ñëw teg ci bët yow ñu may la des espèces qui ont été du déjà du tey lu ko Norvège bëgg bëgg bëgg bëgg mënu fa évoluer tey lu ko yenn zone yi ay Alaska bëgg bëgg bëgg mënu ko mënu fa évoluer yow ñu jox la ko il y a des gens qui aiment les animaux à tel point que dañuy fay ay millions ak seen i pour ñëw teg ci bët mais à qui on a affaire du Karim Sall encore les Sall donc maanaam il y a des gens ñom ils sont au-dessus de la loi au Sénégal ñom lu leen neex lañuy def euh, enfin euh, on doit on doit pouvoir on doit pouvoir, en tout cas, les réglementations internationales en termes de protection de certaines espèces, on doit pouvoir porter plainte quelque part. On a consulter des gens qui sont, qui sont spécialisés dans le domaine, domaine Bobo. Parce qu'on doit pouvoir quand même porter plainte contre ce monsieur-là qui s'arrose le droit di jël li nga xamantene un état moko ko mayaat beneen état jël ko dugal ko ci kii ba pare saagan be be be ñu perte ci ñaar donc vraiment comme ñi ñi duñu du ñuy condamner des gens qui braquent des espèces protégées on doit quand même pouvoir saisir euh, des tribunaux qui soient des tribunaux locaux wala internationaux pour pour que yenn pratique yi ñu ñu ñu ñu bàyyi ko quoi c'est c'est c'est pas possible autrement li nga wax la mu ci nekk c'est-à-dire am na fu muy toll da ngay gis ni euh suñu réew yi nit ñi dañuy yabaate yabaate boo xamante ne lii mooy tax ben côté ngay bëgg ay cours yu mel cours de la haie di am après ñuy togn naan africain rek lañ fa yóbbu en fait parce que dañuy def lo xamante parfois da ngay gis ni yow mënoo leen àtte sa biir parce que li Abdou Karim Sall def ni dans un pays sérieux d'abord il aurait démissionné il serait renvoyé du gouvernement immédiatement mais là ça prouve qu'il a l'aval de l'exécutif parce que déjà il a fait ici une bêtise bêtise laa koy wax ko xamante ni dafa dem de le, la journée de l'arbre. On voit un monsieur qui arrive, on a mhm. un agent des, des, des eaux et forêts en tenue qui est qui s'est accroupi, genou mais souffle souffre. L'homme est Le ministre, lui, on lui étale une natte, ñu là comme passant. Hmm. Sénégalais de surcroît. juddo ci suuf si mokk ci suuf si nga mag hmm. yow nga ne sa dal yi nga sol yoo xamante senegal sénégal moo tax nga jënd ko boo boo amee ay dal yu mën a yoo xamante ne peut être di leen laal aucune aucune sens de responsabilité amuñu benn amuñu benn réflexe bi nga xamante duñu xalaat ci image alphonse duñu xalaat ci image duñu xalaat lu ñuy def nii ban ban impact lay am kooku noonu moom moo ñëwaat encore ñu bàyyi ko ak bêtise boobu noonu sénégalais yi ñaawlu ko mu jël arrosoir taxaw ci kaw basan di arrosé garab boo xam te ne loxom takkul dàllam takkul kostam takkul normalement jour boobu noonu. on dafa am ñi nga xamante ne quoi da leen tiital. da leen tiital da leen tiital yéen yi moom da leen tiital. waaw tout des comportements yi nga xamante ne c'est devenu irrationnel alors que pouvoir bu ñu ko concevoir comme service da nga dem pour liggéeyal askan bi di ko servir. du du la du la ëpp euh, du la ëpp du ci bopp au point que yenn comportement yi nga xamante ne euh, c'est des comportements de nga baal ma ci terme bi ma lu tubaab di wax ay parvenu euh, nga xamante ne fi fi nga fi nga foogee ko nga ñëw foofu nag nga tiit commencer di def des choses complètement irrationnelles. ah ouais et et et et l'image est importante par rapport à ce qui se fait kon lu ñuy mën a wax en tout cas lancer appel que les protecteurs de l'environnement au Sénégal les protecteurs des animaux, mais aussi la question euh, des, espèces, des espèces protégées, que vraiment nous euh, taxaw que Orexy vraiment nous ñu protéger euh, à ce que le gouvernement Sénégal mette le paquet à ce que euh, les espèces protégées du Sénégal puissent vraiment vivre dans un environnement plus protégé et que ça, c'est un, c'est, un facteur touristique c'est un facteur qui nga da fay da fay andi une autre économie à fay créer une économie parallèle moy que ni day day tax touristes ñoo fofu Sénégal euh, ñu ngi xalaat Abdou Karim Sall dina excuser devant les Sénégalais et s'il a encore une dignité qui reste c'est de démissionner parce qu'il a fauté grave par rapport à des espèces de xam moom moo leen protéger moom moo waroon gis nit ñi taxaw taxaw boobu mu taxaw mu leen ça c'est pas normal mais c'est lui qui pèse là c'est lui qui pose mmh. l'acte et c'est dommage encore une fois que on doit hmm. être là à parler de telle bassesse yoo xamante ni ñi nga xam ñoom la ñu dégg pour ñu sàmm ñu defuñu ko euh, Alphonse li moo nekkoon waxtaan bi. te Israël nga baal ma buli Israël war na laaj ay compte l'état du Sénégal. en tout cas loolu euh, gars yi wala gars yi dem ambassade Israël dem fa des Sénégalais dañ leen carrément li ngeen mayoon am na ñoo xam ñu ngi koy jàggati fii comme ça peut-être Israël dina mën a interpeller le Sénégal. Euh, Alphonse li mooy li nga xam ne moom la ñu indiloon internet yi tey euh, ci waxtaan xam naa dañuy dugg ci euh, tey peut-être du nekk cri de cœur mais peut-être je ne sais pas un coup de cœur lay nekk ci li nga mhm. xamante ni benn doomu réew mi doomu Sénégal def jaloore def jaloore jaloore boo xamante ni yaakaar naa ni dina bokk néew na ci sénégal yi nga xam ni nekk nañu champion d'Angleterre ma bàyyi la nga may ñu si tuuti rek ci la personne de Sadio Mané, euh, l'enfant de Bambali, de rien mm -hmm. et à tout. waaw coup de cœur quoi pour euh, suñu Lion ah hein, euh, suñu euh, euh... ni nga waxee Sadio Sadio Sadio Mané di ko féliciter bu baax a baax ci ci trophée boobu parce que je pense moom moo nekk premier sénégalais bi nga xamante ne moom moo Maman remporté championnat d'Angleterre. Donc, euh, mm-hmm. rien que pour ça, félicitation. Mais mm-hmm. pourquoi c'est important à nous voir euh, mm-hmm. C'est parce que Sadio Mane, son, comportement a toujours été exemplaire jusque-là. Il fait, xale bi nga dafa gëm lu muy euh, discipliné calme di chaque fois di essayer di améliorer di un di ay niveau di à ay niveau ba ñëpp a ko ci donc je pense que c'est c'est un exemple Hein? tant que nous donnons à affaire aux valeurs les valeurs de travail mm-hmm. donc euh, dafa un exemple pour pour pour la jeunesse donc euh, dafay baax tamit ñu koy souligner comme mm-hmm. comme Jotna TV euh, ak Jotna Talk mm-hmm. voilà. Yeah. trouve nécessaire, en tout cas important, de, de, mettre des gens comme ça chaque en avant, de rappeler la jeunesse que est héroïque à Tout à fait. Et, hard work never got lost. Comme le disaient les Américains, un, un, une dure mhm. labeur euh, n'est jamais perdu. Soit on y gagne en expérience ou bien on y gagne en, en finance. Parce que je euh, Sadio Mané, quand même, voilà un enfant euh, très jeune aujourd'hui, il a que 27 ans, 28 ans, le qui a quitté son Bambali avec même pas de bonnes chaussures. Arrive dans un test, il n'a pas d'aller le football. Et il insiste gars Michael et de là tous les recruteurs qui étaient là-bas étaient éblouis par le talent de ce jeune voilà un enfant qui n'était qui n'était pas destiné à jouer au football son père est un imam ça a été dafa pour mais hmm. la persévérance mais aussi la discipline yaro que encore une fois du nous peut-être nous nous amal nan ngay def ba am les bons contacts mais yow liggéeyam ba bu ñu la fekkee hmm. ci li ngay def au moins ñu mun la hisser mais travail bats-toi Sadio aujourd'hui est un exemple pour l'Afrique est un exemple pour les les jeunes sénégalais mais aussi dafay wane ni euh, doomu euh la discipline day fay you know euh, wala dafa ne loolu la yar mayul reewande mënu la ko may Sadio quand même euh, il a été rare les moments où buñ ko rapproché xam ben acte d'indiscipline lu bëri xam nga kon wane na ni ko ni aussi sport mën nga ci nek euh am ben comportement bu bu exemplaire que ni pas boo amé xaalis da nga wara a forcément da nga wara nek di parler tout le temps da nga wara nek nekk def lii tout le temps en fait c'est c'est ah, euh, il est jeune kenn mënu ko condamner bu ko defoon parce que mm-hmm. mën na ko def ja def lu lépp xam nga dañ naan c'est normal jeune la mais aujourd'hui quand même il a montré un exemple euh, de, foi, de discipline, de persévérance. Il a eu des moments sombres, Sadio. Il a eu des moments sombres. Il a eu des moments sombres. Il de eu Il moments sombres. Il a eu des xam nga mais quand même il na boppam ñafe na concurrence à un moment donné il y a eu une concurrence dure à Liverpool mais aujourd'hui à Liverpool nous avons donné le numéro 10 Ce n'est pas n'importe qui qui porte le numéro 10 dans une équipe comme c'est notre fierté et bravo à lui. Mm-hmm. Et on lui souhaite en, tout cas de l'endormir meilleur, meilleur, meilleur. Et nous, nous avons couronner avec une Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons aussi le titre de la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Et ça sera un plaisir extrêmement euh, euh, euh, exaltant pour lui, pour nous et pour Bambali. Et bravo aux Reds, comme ils le disent, qui ne marchera jamais seul. You never walk alone, ça, Oui, merci beaucoup Boli pour cet hommage à Sadio euh, encore téléspectateur téléspectateurs euh, rendez-vous tous les lundis sur Jotna TV et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur cette chaîne merci beaucoup. merci beaucoup merci beaucoup et euh, merci à toute l'équipe technique